إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الحق المبين لا إله إلا الله محمد الإمام إلهي لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen nuyu nuyu bu gën a tedd ci nuyoo yi di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. egsi nañu fii ci New York di sant sunu borom bu baax a baax tey ci bésub le 3 septembre 2016 ngir amal li nga xam ne moom mooy hommage bi ñu war a rendre Chérif Al Ousseynou Laye sunu baay bu tedd boobu yàlla yàlla yokk ay leeram. ñu war ci ànd ak euh, daayira New York war ci ànd ak association des Layènes d'Amérique en collaboration avec euh, Bichri TV. ak Diamalahi TV kon euh, ñu ngi fii war a def wàcce kaamil bi nga xam ne fii la ñu koy tëjee bu ñu paree sikar ñaan bu ñu paree ànd ci ak sunu sang sunu sëriñ Cheikh Mbacke Laay mu war a jaajaat mbooloo mi war a waxtaan ak mbooloo mi war a ñaanal mbooloo mi mais aussi war a tëj kaamil bi kon ñu ngi leen di bàyyi ngeen seetaan ko. wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albirru man amana billahi walyawmi alakhiri walmalaikati walkitabi wannabiyina wa ata almal wa ata almal ala hubbihi dawi alqurba walyatama walmasakin wabna alsabili wassailina wa fi alriqabi wa aqama alsalata wa ata alzakata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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في الخساس حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul audu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri nafaathati fi luqad wa min charri xaasidin ida xasad bismillahi irrahmani irrahim qul audu bi rabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min charri alwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas sadaqa allahu alazim sadaqa rasuluhu annabi alkarim wa nahnu ala zalika min alshahidin rabbana taqabbal تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراء وبالزاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالخاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كراما وباللام لطفا وبالميم موئزا وبالنون نورا وبالهاء هدايا وبالواو وصلا وبالياء يقينا اللهم بلغ صواب ما قرانا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء وإلى أرواح أمهاتنا وآبائنا وإخواننا wa ila ruuxi saydina chérif ouseynula wa ila ruuxi saydina chérif alxuseynula wa ila ruuxi saydina chérif alxuseynula allahuma ballig sababa ma qarana wa nuura ma talawna ila ruuxi saydina chérif alxuseynula allahuma ballig sababa ma qarana ونور ما تلونا إلى روح سيدنا شريف الحسين الله اللهم بلغ صواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا شريف الحسين الله اللهم بلغ صواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه آمين. wa ila arwaahi ashaabihi radiyallahu anhum ajmain wa ila arwaahi ummahaatina wa aabaa'ina wa ixwanina wa ila jamii almuslimin amin ya rab alalamin wa ila arwaxi almuslimin walmuslimat walmuminina walmuminat fi alahyai minhum walamwat allahuma ansur man nasara din allahuma ansur man nasara din allahuma ansur man nasara din allahuma irhamna bilquran alazim allahuma irhamna bilquran alazim allahuma irhamna bilquran alazim waj'alhu lana imaman wa nuran نورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارزقنا تلاوته تلاوته أنا الليل وأنا النهار اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين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 allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima uxle walxatim lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadri wa miqdaarihi alazim allahuma najjina maa najjina allahuma najjina maa najjina allahuma najjina maa najjina wala tuhlikna maa alhaalikiin wala tuhlikna maa alhaalikiin wala tuhlikna maa alhaalikiin safan sanaau walmulku daa'iman mursaliin tabaarakta wa taalayta tabaarakta wa taalayta tabaarakta wa taalayta yaa zal jalaali wal ikraam nasrun min allahi wa fatun qariib nasrun min allahi wa fatun qarib nasrun min allahi wa fatun qarib wa bashir almuminin thabatana allahu biddini waliman thabatana allahu ala jamaati almuslimin allahuma irfa darajat alislam waliman واخفض درجة الكفار والمنافقين اللهم ارفعنا فوق أعدائنا إلهي أن يكون أعداؤنا تحت أقدامنا دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina allahumma in lam yakun lana ahlun an nablugha rahma fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla shay'in ya rabbal alamin allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika allahuma yassir lana sabil allahuma yassir lana sabil allahuma yassir lana sabila ila ma yurdik allahuma yassir lana sabila ila ma yurdik allahuma yassir lana sabila ila ma yurdik innaka rabbul alamin wa mujibu sailin nasalullaha tawfiq nasalullaha tawfiq wa taysir wal mauna wal hifdi wan nur wal raja wa husni zanni bik wal yaas min gayrik tabaraka ismuka wa taala jadduka laa ilaha gayruk bika aamana wa laka aslamna wa alayka tawakkalna wa alayka tawakkalna wa alayka tawakkalna xaqaqna bi nurika ya maliki yawmi diin ya rahmanu ya rahim daawnaka fastajib lana nasaluka ya rahman daawnaka fastajib lana daawnaka fastajib lana دعوناك فاستجب لنا انصر نصارى الدين يا رحيم انصر نصارى الدين يا رحمن انصر نصارى الدين يا هادي انصر نصارى الدين يا غني انصر نصارى الدين يا فتاح انصر نصارى الدين يا رزاق انصر نصارى الدين يا الله يا الله يا الله يا مالك الملك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض دعوناك فاستجب لنا إنك ذو جود وغفران دعوناك يا رحمن أنت كشف الغمام والكروب يا ديان دعوناك يا رحمن أنت كاشف الغمام والكروب يا ديان دعوناك يا رحمن أنت كاشف الغمام والكروب يا ديان افتح لنا اللهم باب البشرى افتح لنا اللهم باب البشرى افتح لنا اللهم باب البشرى بكلمات لا إيه

yàlla sant dañ ñaanal yàlla yàlla na leen doon jàmm yàlla kontaan na ba baax a baax gërëm suñu gan yi tëdd yi ñu koy ginnaaw nga xam ni Rasulullah, la ilaha كما نرى ولا إله

la ilaha ci xeetu lebo bàyyi laay ku la ba daatu bismillaay sinañ si wal jalaal sali alal mahbub bisil majji wal hula seen maam sanaawun jamila li nabi imamina wanna imamilaay sil fadli wal hula صلي يا عباد الله عليه سلما هو المتوى خير برايا مكملا سرما وفاخر للاي فضلا وبالولا سراجا انار للوجود ذوي الدلا يا لباس لا رسول لا اله ala lay lay la laaw ñooñ daal seen maam min xabli daaka bi anna laay allamahu bàyyi laay mu baax ma mawtan waliyati inda nawmi fi lxurumi waay su mayu xadiisu ibnu xaali daawuda ndooy inda riyaadate xamsaanin mahal ximami waaye keroog fa xaalay nii raaytul baarixata bi layli bàyyi laay mawtu imraatin waliyati samami borom jàmmalaaya naa xayartu bi dakal mawti yaa ajaban azimatun amruha yaa uqiyal karami waaye seen maam la maama daanak wa saalisatin bi yawmil arbaa'i maatat ummuhul keroog la génn naan wallahi maay rasoolu Baay Laay jalla jalaalo sang bi mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi delluwaat di sant sunu boroom di ñaan li nga xam ni moom lañ fi ñaan mu ni yàlla naka yàlla nangu mu ni ki nga xam ni moo tax ñu daje fi di Seydina Baay Ousseynou di màggal bisam tey di ko ñaanal tey jii mu ni sunu ñaan gii yàlla naka sunu borom nangu yokkaay leeram nee ci barke maamam ja Seydina Imaamillaahi ak baayam ba Seydina Isaaruullah yàlla na sama borom dolli leer Chérif Ousseynou Laye mu ni yàlla na yàlla dolli leer nee na yàlla na yàlla dolli leer maam Baye mu baax ma ak njabootam nga yëpp yàlla na sama borom dolli leer mboolem kilifa diina yi ñi jiitu ñëpp yàlla na yàlla dolli seeni leer nee na yàlla na buur yàlla yërëm mboolem néewi jullit yëpp fu waay mën a ne nekk ci biir suuf yàlla xam ne seen lim yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen di ñaan ñun ñi fi deseendi yàlla na sama borom dimbali nu bàyyeendi nu fi te xiir nu ci boppam ba keroog ñuy fekk sunu borom nee na ñu jiital ci ñaan googu sunu xalifa sunu baay sunu soppe Seydina Baay Abdullahi ibnu Seydina Isaarullah yàlla na fi yàgg te am wér nee na Baay Ablaay yàlla na fi yàgg te am wér Baay na fi yàgg te yàlla yàggal fi mboolem kilifay diina yi ak fu waay mën ne jiite lislaam bi yàlla na la yàlla yàggal yàlla jàppale la may la bala ñu bëgg ca njaboot ga nga mottali sa yéene yàlla na sama borom def ko nee na yàlla na fi yàlla yàggal njabootu maam Baay Laay gépp sunu baay Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Ma Njoon te jiite leen yàlla na yàlla yàggal leen fi may leen wér nee na réew ma ca Sénégal yàlla na sunu borom dollil nu fa jàmm yàlla na fa yàlla dolli jàmm ña jee ci réew ma ña ñu àndal ñëpp yal na yàlla dool leen jàmm nee na fii ñu nekk di Amérique yal na fi yàlla dolli jàmm yal na fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na juboo am ci dëkk bi yàlla na yàlla musal nu ci balaa yi ak musiba yi ci màgg sunu boroom baaxu maam bàyyi laay ñun ñi fi nekk xéewal gi nuy sàkku yàlla na son boroom yombalal nu ko ci barke ñaan gi yàlla bu nu beew ñu ngi ñaan sunu boroom ñi amul kayit yàlla na leen ka yàlla jox ñi kayit yàlla neen ki yàlla jox ñaamul kayit yàlla neen ki yàlla jox bu nu ko yàlla joxee yàlla na ànd ak xéewal ñaam xéewal ñaam xéewal yàlla bu nu beew ñaam kayit yàlla na yàlla suturaal leen yàlla suturaal njaboot gi fi nekk yàlla na yàlla suturaal leen sunu doom yi yàlla bu nu rëcc yàlla yàlla bu nu të yàlla leen yàlla xiir ci lislaam jaageen jëf kontaan nan sanga bi mu ni kàddu ngërëm yi kàddu ma Baye Abdullahi la nee na fépp fu nu toog ci mission la nekk yàlla sunu borom dogal na moom mooy kilifa gi nee na yooyu du dara lu dul jërë ngeen jëf fu waay mën a jóge sanga bi mu ni ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla na nga delloo jàmm nee na kontaan na bu baax a baax di gërëm sunu gan ñu tedd yi feete ginnaaw nga xam ni mu ni Alaaji Ousseynou Konté di xaritam di ku baax ànd mu ni ànd ak Serigne Omar Karaw Niass mu ni di sët ci Maam Baay Niass radiyallahu anhu yàlla na sunu borom dolli ay mu ni jëmm ji toog nañu kanamam ak woyafam bu lii xewee mu am fiite lool mu ni yàlla na sama borom fay leen jërë ngeen jëf nee na li ci des nag ñun ñëpp ay taalibe lanu nee ñun ñëpp ay taalibe lan sàkk lu baax rek ak yiw nee na moom moonu boole nee na muy xamal boppam ni di dénk boppam di dénk njaboot gi dinu wax ni ki moom lépp te ne ku bëgg sa lépp a baax da ngay bàyyi xel ci moom mooy subhanahu wa taala bu nu naxante nee fi ñuy liggéey nee na kaka yilif saa su ne ngi sàkku lu neex nee na àdduna nag entreprise rek yàlla moo moom lépp ilif ñëpp te lu ko neex rek mooy am ci nguuram gi moom sunu borom ñu bàyyi xel loolu ñu delloo yàlla cëram na nu jox sunu borom cëram na nu jëlaat cër bi delloo ko yàlla nee na képp ku nu fiy tagg nee na yàlla rek a tax nee na nit ngay màggal nit amoo ca sago garaat bu ne nga jox ko ko yàlla mi moom yàlla mi moom lépp buñ koy tagg doo koy yëgal sa yaram nee na war nga seetaat sa bopp nee na wa iza zukira allah isma azzat xuluba alladina laa yuminuuna bil axira nee na wa iza zukira alladina min dunihi iza hum yastabsiruun ñuy tagg yàlla. nee na su ñuy tagg yàlla. nga gis sama classe nee na nga gis ñenn ñi. ñu ngi ni teg. ñu ni sax yëgal seen yaram. ñu ngi ni teg. nee na ñu ngi ni tekk rek. te ku ciy communiquer. nee na képp ka koo xam ne yaa ngi communiquer. di téléphoner. di téléphoner. kilifa. nee na doo bëgg ku dagg sa téléphone yàlla nag kuy communiquer ak sunu boroom waroo nangu ku la traversé nee na ñu bàyyi waat xel ci yàlla nee na lépp loo xam ne ñoom ñu ngi koy wax te delloowun nu ci sunu boroom nee na bàyyi nan yoon wa nee na gaay mooy mbir mi nee na li nu bëgg mu yàlla rek ko yor yàlla rek moo ko yor li ñu bëgg lépp yàlla moo ko amee nee na koo xam ni sa ruu ci loxoom la ne te jamono bu ko soobee mu rocci ko doo ci man dara nee na nga bàyyi xel ci yàlla mu ni dafa jàpp ni nee na ni diggante yi sore nee na fu waay jóge fa ci réew mi ba ñu jóge Canada ba ñu jóge Canada am ñu jóge Sénégal nee na dafa yaakaar ni yàlla mooy war a doon sunu yitte ci jéego yooyu nee na temps dafa xat bu ko kenn yàq nee na bisu diine nu dajale lu si war rek nan ka def te yàlla tax la ca jiitu mooy jiital ci sunu borom màggal ka nee na ki yàlla yónni woon ci ñun wanewul boppam nee na Seydina Limaamu nee na wanewul boppam nee na dafa ne ajiboo daa iyallahi nee na wootewul mukk jëme ci boppam dafa woote jëme ci yàlla subhanahu wa mu daal di cay teg ni nee na su ngeen gisee ku ma gën a rafet jikko ku ma ëpp lu muy tere ëppale lu may digle nee na na ngeen ma bàyyi ngeen ñëw ci man ma ànd ak yéen ñu dem ci kooku nee na lan la Seydina Limaamu wane yàlla yi rek la nu wan nee na ñun nag fu nu toog nan leen delloo wan yàlla subhaanahu wa ci des nee na nanu soppante ci sunu biir jàppante yi ci sunu biir bàyyi détail jaamuwaat sunu boroom nee loo xam ni boo ko defee xolu jullit daal di nee na nanga daal di def te yàlla rek tax loo xam ni soo ko defee xolu jullit daal di tàng nee na bu ko def yow jullit bi nee na mu ngi jàpp bind Seydina nee ci benn jëmm boo xam ni benn saxaaba nee na toolu raisin dafa ñor nee na tool bi rafet lool nee na mu dagg ca cëba nee na laxas raisin bi ba mu jekk nee na kan la ko yéene sallallahu alayhi wa sallam nee na mu gàddu ka ba fekk yonent bi ci mbooloo mi nee na nii ñu tooge nee na sallallahu alayhi wa sallam toog nee na mu nuyoo ni sang bi nee na lii day sa addiya nee na yonent bi dagg daal di sex waa ji bég nee na yonent bi daggaat sexati waa ji gën a kontaanati nee na da ngay gis ci kanam gi ni kontaante gi ak mbégte mi di melxati yonent bi di dagg rek muy bég rek muy bég rek ba daal lépp daal di jeex nee na waa ji gëmewul mbég mi tàllal loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ngi muuñ ni ka sang bi ñaanal ma yonent bi ni ko ëf mu ni bërët di daw ndax kontaante nee na sahaaba yi di wax ni yonent bi ci ñoom daal di ni ko sang bi yow yaa waxoon ni lu nu gis lu nu gis xamuñu ko nan la ko laaj waa tey def nga lu nu jaaxal yow sallallahu alayhi wa sallam ndax yow buñ la andilee teraanga lu nuy lekk nee na boo mosee dang nuy daal du sedd tey nag lekk nga lépp bàyyi nu yonent bi sallallahu alayhi wa daal di ree daal di leen di wax ni xanaa seetluwu leen waa ji ni mu ma joxe ah, raisin bi bi ma daggee gisoo leen kanam gi ni mu bëggee ñu ni ko ñëpp ni ko waaw bi ma lekkee lépp gisoo leen ni muy dawe ndax mbégte ñu ni ko waaw waaw mu ni xam ngeen lu tax sedduma leen ñu ni ko déeret sang bi mu ni bi ma njëkkee seq dafa weex ma dagaat mu wexati ma ragal bu ma leen séddee dina wex feeñ ci seen kanam kii am lu ko naqari sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu moo tax séddul kenn nee na looy jàng ci loolu loo xam ni boo ko defee jullit kontaan dang nga ciy daal di taxaw am ci yitte bu baax loo xam ni boo ko defee jullit mer sànge bi mu ni bu ko def loolu mooy njàngale mi yàlla nu yàlla dimbali yàlla nu ñuy bég fu nu toll tey daal li muy ñaan bu kenn mer wala ku meroon bul merati waaw sànge bi mu ni ku meroon na nga denc sa mer sànni ko sa fu kenn xamul na ñëpp di bég na ñëpp di kontaan na ñëpp happy waaw amin barki maam Baye la nen ñu waaj julli gi محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asraf almursalin seydina muhammad rasulullah salallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wala uqda lisaani waaw bés bi de bésab julli ñëpp la bésab sant yàlla la ndax fépp foo xamee ne ña ngi fay teewal suñu borom bi tabaaraka wa taala ñun fas yéene fas yéene ñoo dagg suñu hitte dem fa ngir jëmmi suñu borom bi tabaaraka wa taala bi ñëwee fekk nañ fii li nga xam ne moom la ñu yoree mooy alquranul karim lañ fekk ñu teg ko di ko jàng ñu ubbi kaamil bi ñu bokk ak ñoom kaamil bi maa ngi ànd ak alaaji Ousseynou Kontey ñu ñëw taxawaay bi ñëwee ko ci ndigalal ansaaru diin bu kër seexul islam alaaji Ibrahima Niass ci njiitalal alaaji Ndaw mi nga xam ne mooy président ansaaru diin tey moom mi fi yàlla teg mu jiital ñu ci këri diine yëpp. waxtu wuñ teewee ci këri diine liñ fay teewee mooy dañuy teew suñ jëmm ak suñ xalaat ak ndigalam moom alaaji ndaw mi nga xam ne mooy président Ansaarud-Din ma ñëw ànd ak alaaji seeni Konté ñu ñëw fekk fi cheikh bi cheikh bi tatagal ñu teral ñu ndax tatagal bi gën a rëy mooy jox ñu alxuraan ñu jàng bokk ak ñoom ñu julli tusubaar lii rek la maam imaamu laay daan santaane l'islam na dem ci kanam na dem ci kanam bu ko defee nag fii ci dëkk bu lëndëm bi ñu man fay ñëw teew fi teewal fi maam Imaamu mu ñëw di fi woote diine ba mu agsi fii kon xam nañ ne lislaam rek moo jara oote lislaam rek moo jara santaane lislaam rek moo jara digle loolu la sëriñ bi wax cheikh bi bi ñëwee fekk fi li mu wax lu leer nañu la gëm leen yàlla wattandiku leen yàlla te leen di da ay trem di jëfandikoo ay lim santaane loolu ci lañ leen fekk ñi ngi kontaan bu baax ci bés bi di sant yàlla yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bëree bëri bari yàlla suturaal ñu te wattuñu moom kilifa gi yàlla may ko maqaama yokk maqaamam yokk fanam yokk wéram ci barke alquran ci barke yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi Thank you.

gis ngeen noonu nga xamee ne daayira bi nuyoo nañ ko auditeurs yi nuyoo nañ ko téléspectateurs yi daayira bi sikar fi sikar su riir su am solo sikar soo xam ne delloowaat nañu ci suñu borom waaye aussi gis ngeen julli tisbaar bi ak niñ ko defee ak euh, ànd ci ak euh, suñu gan yi nga xam ne ñoo jógee ba Canada ñii jógee ba Columbus ñii jógee ba Rhode Island fu ne ci Amérique ñii jógee ba Florida ku mel ni suñu mbokk moomu di euh, Ayun mu nga jóge ba Florida ñëw teewe si li nga xam ne mooy hommage bi ñuy rendre Baye Chérif Al Ousseynou Laye mais aussi lii ñu gën a marqué ci euh, événement suba gi moom mooy waxtaan wi nga xam ne sëñ Cheikh Mbacke laay def na ko muy waxtaan bu am solo muy message bu foor muy message boo xam ne dafay dëggal ne moom unificateur la mais aussi euh, jaajaat na laaye ni ñu gën a booloo gën a ànd gën a liggéey ngir te yàlla rek tax muy loo xam ne ñun ñëpp rafetlu nañ ko Euh, ñu leen nag di jox rendez-vous guddi bu soobee suñu borom fële ca Armenian Church comme fiñ ñu ko daan defee bi fii jamono Baye Chérif Al Ousseynou laay nekkee euh, encore une fois ñu koy ñaanal yàlla yokk ay leeram ñu leen di jox rendez-vous ngoon di ñaan nit yi ñu teel a ñëw bu ñu xewloo ba pare rek ñëpp teew fa ñu daal di def ko comme nañ ko daan defee ñaan sikkar daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy événement bi yàlla na yàlla defal ñu jàmm may ñu dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.